suñu papa yi jënd kër yi ko jaay leen ak espace yëpp ñuy fay ak nuñ ko mën a fayee ñuy fay ba tollu fii ñu xëy un bon jour ñu ne benn nit bu jógee fële ñëw na nee na moom moom terrain yóbbu nañu descos dañoo jaabante ak moom descos ba sonn pour ñun affaire bi pare woon na wax dëgg yàlla man bokk moom laa jàppoon. mais un grand jour ñu ñëw wax nañu ne moom dafa porté woon plainte président du conseil de quartier. porter plainte d'un délégué du quartier qui portewul plainte délégué de quartier ak président conseil de quartier ñun HLM Paris ñun doomu HLM Paris ñun ñii la ko porter plainte yàlla bi nga xamante ni mooy def lu baax moo am benn doomu HLM bu yem ci procès bi parce que dafa amul beneen procès bu ko fa yóbbu ci la gis procès bi xam ni lii mooy procès HLM Paris bi terrain bi amul litige ci lañ jël procès bi dal di atte atte bi dal di jox waa ji parce que bu ñu ñëwee indi waa ji ne ko am ku tudd Momar Sock tout court ne ko ku tudd Aziz Mbacké tout court ñoom maa am sama terrain euh, boo xam ne titre foncier la mi ngi nii nangam nangam te titre foncier moom mi ngi ko am 2021 euh, mm-hmm. te paa bi ñu ngi ko bañal titre ñu ngi ko bañal tabax bi en 96 mm-hmm. SNHLM bi nga xamante ne moom moo am moom moom rek moo am affiliabilité wu joxe terrain bi moom mi ngi ko bañal kii waa ji 96 kii xaw ma fu mu jëlee kayit mu ne un certain Saliou Diagne moo ko jaay kayit moo ko ko jaay en 2021 te waa ji tamit boo seetloo il s'est bien protégé parce que nelawul du dof bu demoon H SNHLM nee na SNHLM moom ma ko jaay kon bu boobaa moom ak SNHLM la mais Saliou Diagne mën na sax for carte d'identité mën na sax for carte d'identité jàmbur ne diw mi bind diw moom ma ko jaay nangam nangam nangam nangam nangam ñu bind ñu avancé Saliou Diagne booy seet foo koy seetee kan mooy Saliou Diagne doo ko xam boo amoon SNHLM nga bind lettre ak ak daaka SNHLM SNHLM da koy jàpp indi ko parce que diffamation la faux usage de faux la hmm. ne ko ñun dañoo xam assiette foncière bi nekk fii ci HLM Paris SN HLM cadre de vie lañuy jaay ay appartement ak ay logement lañ lay wax du bëri si nga ñii ñoo fi nekk sax di dugg sur le plan juridique mais kii dañuy bu deful nag dañuy jël bakkanam fii HLM Paris la kii dafa feebar xanaa suñu papa soog nee naa la koy porter plainte eh mais kii dafa dof kii wér na maire bi nag waxul de doomu quartier bay wax lii du lu ñuy maslaa du lu ñuy layam layame kii moo la gën a xam ni du fi teg brique barki Serigne Bassirou Bara du fi teg brique. kenn mënu ko jaay parce que c'est un titre foncier. bu SNHLM te dafa mel ni nga am sa titre foncier xëy suba dégg ni benn nit jaay na ko keneen c'est la même chose et le titre foncier euh, il est inattaquable inaliénable sauf pour mu nekk utilité publique mooy li ma leen wax rek formulation boobu dafay am kon fii comme voie de dégagement la considérer que servitude la te servitude kenn mënu ko jaay alors troisième point bi ñu ne à défaut d'avoir le plan qu'on nous sert au moins le bordelot analytique def ko mosul bëgg a jënd ñu ne ko lii c'est c'est c'est incessible mënuñu ko jaay parce que voie de dégagement la donc lii nii utilité bi nga xam ne moom la am euh, ci habitant HLM Paris même utilité bi la école bee am même utilité bi la mosquée bi am fi mu nekk nii ñun combat bi ñuy xeex nii dafa mel ni dafa am benn individuel bu ñëwoon rek bëgg a toj école bi wala bëgg a toj jàkka ji pour tabax ci këram tout simplement donc le combat est légitime je pense que nous avons le bon droit avec nous ci hypothèse bi ñu toll nii ak ci hypothèse où SNHLM moom moo ko jaay en en terme très simple